ji moom mën naa gàtt rek te am solo moo gën gudd te amul solo kii ñu fi indi di Baye Lat dafa nekk nit koo xamante ne dafay dox ci social nekk sportif nekk nit boo xamante ne nit wax dëgg yàlla day dimbaliwaat nekk nit ku baax nit ku goree nit koo xam ne lu nit nekk ma nga ca kon ko woo ñun nga woo woo mu demee la waaye ñun képp mbooram feexal na fi barki Seydina Muhammad dañ lay ñaanal gudd fan yor wërsëg ak xéwal bu bari ba lépp loo xamante ne yaa ngi koy yónni ci jeunesse bi suñ borom gàttanal la dooleel la ba yomb ci yow lool waaye laat ñun li ma la doon wax démb laa lay wax tey suñu diggante yow ndox Evian la bu tuuri ci biir géej su ko mënta séparé suñu diggante du ma sa jeex yow ñun ñun ñoo la bëgg man moom maa la bëgg waaye ndaw ñett yow ñoo la bëgg yow bu doon fanta lépp dana baax incha allah. Ah, kooku la séeréer waxee sit naan loolu nag bi léegi gis nga muy làkk séeréer nag bu ngeen ko baal ñu ngi sant yàlla tey ñaanal suñu sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke Fallilou mu yàgg fi loolu te ak bépp jullit donc sëñ Samba Ndour sax bu waxee daanaka waruñu woon wax ndax suñu kilifa la suñu sëriñ bi mën nañoo maase mi wala ñu tolloo ci jëmm mais bokkuñu niveau ndax ab sëriñ la te suñu sëriñ bi daf ñuy digal saa su ne nañu borom teraanga wala képp koo xam ne ab sëriñ la buñ ko gisee nañ ko def ni sëriñ bi moom rek mu waxoon doy na nga ci gisee moom man xaw lu ma koy wax donc damaa jóg mu jóg bu ma jógee mu jóg bu ma toogee mu toog gërëm aussi waa écurie Ndiogou Dia ñoom ñëpp ci gërëm waa Croix Rouge yi ma àndal ak waa hôpital Matlaboul Fawzeyni ku lim nag doo jum waaye da ko dul matal mais gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp di wax buubu nag dafa gore rek moo tax mu tuddee ma làmb mais képp ku ma xam doomu Mbàkke nga ma xamee ba ma juddoo samay tànk yaroo samay tànk ma nekk équipe nationale combattant laa comme yéen mais bokkuñu woon discipline sama maître mi ngi ne la mën na maa seede muy maître Mbaye Guèye ceinture noire cinquième dan mooy arbitre ne sol lu vert li moo ma yar xam na ci man lu bëri donc goreel bu buubu buubu gore moo tax mu tuddee ma làmb buubu Thiès ki ki mu mujjee daan muy booy ñaar sama doom la il faut que ça ça soit clair nit ki booy wax da wax dëgg yàlla tax kenn du ma gis fii tey suba nga seet ma faneen déedéet waaye dafa am lu ma lié ak moom moom xam na man xam na fajo ñu dajal man ak buubu ba séq li ñu séq ba moy tuddee ci làmbam ji moom xam na man xam na sëriñ nag nee na on nangaa tig a taxu waaw mu ngo kon leer na sant naa la gërëm naa la day bu la neexoon nga ne kii kii di ñëw dafa ànd ak sama adversaire ñu nekk benn muy Boy Niang ba pare moom woo ko ne ko lamb du xuloo du xare du xeex ñoom ñaar ñii ñoo mujjee bëri kii guddeeg bëccëg ñooy nekk Boy Niang kaay ñoom dañuy joxe benn exemple bi ñuy dajee Diourbel ñoom comme ñuy xare jot ñu xeex bëre jot ñu bëre buubu ces ki daan ko man ak moom duñ tàqalikoo guddi ak bëccëg ba pare buubu wëlbati ko tuddee ma làmb buubu daf leen di wan ne làmb du xare une laps de temps la ñu daje ci làmb ji ñoom bëre après bu jeexee jeex na loolu la bu jeexee rek jeex na voilà lii mooy àdduna mbëri aussi nañu bàyyi xel ci lenn combat yàggut temps bu gàtt la après nga am fi ay doom nekk keneen ak keneen am na loo xam ne jaru ko fi ñëw Diourbel di xeex wala di saaga waate di kii dañ lay xàmmee rek ci zéro dañ lay xeeb tamit exemple bi nag mi ngi nii xeex nañ bëri nañ dóorante nañ kii la yàlla waxoon ne mooy am ndam suur boobu daan na kii mais day jeex bu jeexee jeex na suba bu doon bëri ji faneen damay ànd ak moom bu doon Mbàkke doon dem damay ànd ak moom ak waa écrit Ndiogou Dieye yëpp mais du yàq sama diggante ci dara parce que man bëriwu ma mmh. du yàgg-yàgg bañ nekk bu mu caas gi ak sec jamais bu jeexee rek jeex na sant naa la gërëm naa la say biir mbokk yàlla na la yàlla fay parce que aw ma munu ma hmm. ba pare mu tuddee ma aw ma tur du ma politique musuma politique defu ma daray politique du ma dig kenn lenn du may def dama ko def ngir yàlla suma ma ci pare rek pare naa ci kon bu demee moom ba ku xeeba di ne man mu tuddee ko drapeau kon moom moo baax rek yàlla na la yàlla fay yàlla yàlla defal ñëpp jàmm seen sëñ Fall